yi taalibe waa kër Cheikhul Khadim ñi ñuy seetaan ànd ak di ñu déglu ñoo ngi fii tey ci barab bu tedd barab bu màgg di benn ci ëtti Cheikhul Khadim muy kër Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacké li ko sabab nag mooy bis bu màgg am solo di bis bi nga xamee ni ci la jàmbaar ju màgg ju tedd joo xamee ni léppam yàlla la waaye léppam rasulullahi la léppam cheikhul xadim la muy cheikh Mouhamadul Amin Mbakke ibnu cheikhul xadim muy bis bu mag bi boo xamee ni mi ngi dëppoo ci ganeek àddunaam sëriñ Muxtar Mbakke fas yéene koo jiite waaye di ko amal di ci soññ boppam di ci soññ mboolem mbokk yi mboolem taalibe yi waaye mboolem lislaam bi waaye mboolem waa yépp mi dégg nañ ci soññ ñi nga xamee ni soññee na ko ak itam ni mu waxee ni bis bi kat dafa rëy ci moom bis bi dafa mag ci moom ndax Cheikh Mouhamadou Lamine da koo defal loo xamee ni jomm na ko mu am pas-pas bu rëy boo xamee ni bëgg na gën a delloo njukkal kii nga xamee ni mooy woy juróom bi Cheikh Mouhamadou Lamine Mbacke ba tax na mu wax waxi maamam ja di Cheikhul Khadim ne cant gi mi sant way juram Cheikh Mouhamadul Lamine Mbacké dafa jàpp ni daa tuuti lool moom ci sant ko wala aw làmmiñam rek doyu ca wala jëfam moo tax mu ñaan sàkku ci njabootu Cheikhul Khadim gi nga xamee ni moo leen jiite te itam muy dox doxin woo xamee ni doxin wu am solo la di Cheikh Khadim di wér di Cheikh Mouhamadou mu sàkku ci ñépp ñu jàppale ko waaye la ko ci bis bu màgg bi bis bu tedd bii nga xam mooy bi nga xamee ni moo dëppoo ganek àdduna Cheikh Mouhamadou Lamine ca dëkk bi naan Kajoor te Kajoor ku ko tudd rek wala ku ko dégg dana xamee ni dëkkub sànn la waaye dëkk bu mag la dëkk la boo xam ne dëkkub xam-xam la waaye rek dëkk la boo xamee ni manees naa wax ni foofu la yoon wi juddoo te itam fa la juddoo ci ama asachine di en 1883 ca moo doon njàmbaar ga woon ca moom seen baay seddale jikoom sedde kol yi ci bi baatin ba raw na saayiram day gaaw a soppi ay mbiram mbir ma ca baayam ay mbiram mooy al jaliili xarnu bi yàlla nañ ko dolli ay murid te yàlla raw pexem marid ci yàlla mujj def farid ba dolli gaay xarnu bi nang ñaan ci yàlla mi samat mu may sëriñ Abdou Samad te may sëriñ Abdoulaye bu doye day waa xarnu bi woon i xurul farin sëñ mag bëgg ak ci yéen yàlla bu seen barke neen ndax yàlla naatal xarnu bi ndax yàlla yaa jikko dafa nekkoon nituk jikko koo xam ne euh, boo delloo ci euh, mag ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon jamono dañu ko ci tagg dañu ko tagg ci ay jikkoom yu rafet te la defe naa ne li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil mbokkam wax na ko ci moom Cheikh Mouhamadul Amin doy na ca ndax Cheikh Mouhamadul Amin euh, bi muy tagg Cheikh Mouhamadul Fadil daf ko tagg ci jikko wax ne moom Cheikh Mouhamadul Amin lillahi dirruka min cheikhin xawaa rutaba qad zaanaha adabun naahika min adabi waxaat ne maanaa Cheikh Mouhamadul Amin jëmbam jëmmam moom Cheikh Mouhamadul Amin doxinam waxinam jëfam lépp dafa am lu am solo lu muy symboliser muy ay teggin ak yar ak jikko yu rafet wax ne wa di fadaila la tuxsa wa asxaruha maa fiika min xusni al axlaaqi xasabi maanaam Cheikh Mouhamadul Amin jëmm joo xam ne li nekk ci moom ci ay jikko yu rafet ak ay ngëneel mëneesu ko xayma mëneesu ko takk du ci xel du ci làmmiñ ndax yaatoom goo xam ne yaatu na ko wax ne li gën a tuuti ci màndarga Cheikh Mouhamadul Amin wala la ca gën a fes mooy jikko yu sell euh, bi muy waxaat waxaatit ne laa laa yujaarika fil maydaani min ahadi fi l ilmi wal xilmi aw fi l juudi nasabi xam nga makaarimul axlaaq mooy jikko yu sell dafay bari ay ay mbooloom ay jukko lay doon du doon jenn rek soo jëlee xam-xam ci ku ko melowoo benn la ci makaarimul axlaaq ndax moo lay xamal lu baax ak lu bon nga mën di def lu baax di mën a wattandiku lu bon waaye boo jëlee itam lu mel ne ak lewet nga xam ne ku la tooñ nga jéggal ko naka noonu te doo tooñ kenn loolu benn la ci jikko yu baax yi ci makaarimul axlaaq naka noonu itam e, ak tab nit ki nga xam ne dafay joxe alalam te yàlla rek tax loolu it ba tey benn la ci jukko yi nga xam ne e, ci jukko yu rafet yi lañu koy boole moo lim ci rek yooyu wax ne yooyu yëpp nag dafa daje ci Cheikh Mouhamadul Amin ci anam gi gën a mat moom Cheikh Mouhamadul Amin it nag mu mel ne euh, loolu du bett kenn ci moom ndax bu ñu xamee ne lépp lu nekk ci moom rek Serigne Touba ko ci def du bett kenn bu mele noonu moom Cheikh Mouhamadul Amin beneen ba ca des it dafa wax ne euh, sunu borom tabaaraka wa taala dafa dimbali Serigne Touba ci sama defaru nim ko ci defee mooy dafa wax ne yàlla ci jëmmi boppam dafa raxas xolam moom Cheikh Mouhamadul Amin ba dara luy nuru gàkk wala luy nuru tilim tilim amu ci. loolu moo waraloon jéego bu mu mas a yëkkati moom Cheikh Mouhamadul Amin mi ko yëkkati ci luy jariñ doomu aadama yi ak lu leen di daqal lor. te dafay mel ne buñu xoolee cosaanal yoon wi. ca déclaration bu bi nga xam ne mooy bi njëkk Sëriñ Tuuba def ko ca Mbàkke Kajoor bi nga xamee ne ginnaaw way juróom làqu na wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne mooy wéeruwaayam digal na ko ci mu woote rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat euh, tarbiya bil himma boobu buñ ko xoolee te mooy yar ñi nga xam ne ñoom la àndal ci ak taalibe taalibe googu itam Cheikhul Xadim mboolem njabootam itam foofu la leen jaaraloo ndax loolu li koy firndeel mooy dafa am benn bis ci euh, bi sëriñ bi nekkee ci yeen jolof mu woolu cheikh Mouhamadul Moustapha ak cheikh Mouhamadul Fadal lenn ci njaboot gi sëriñ Massamba mbakke ma nga ca woon jataay ba ak sëriñ ma roqee busa sëriñ bi daal ne leen dama leen a bëgg a laabiire tey lu weesu tey ngeen xam ne fii li fi nekk euh, mayewut waaye day jaay te dar du njëg lu dul ak taalibe bi daal di ne du ma bàyyi kenn daal di ne gees xool Cheikh Mahmoudul Moustapha waaye xool Cheikh Mahmoudul Fadal ñu xam ne wax ji ci ñoom la jëm daan itam du ma nijaay kenn daan gees xool sëriñ ma roqay busa daan itam du ma magi kenn daan ne gees xool Serigne ma sàmb waaye itam loolu lépp sëriñ bi leeral ko daan leen danaa nekk baay nag waaye danaa nekk nijaay dinaa nekk mag ci ki nga xam ne nangu na li suñ boroom dogal ci ñun muy ñëw jaayante ci ñun muy ak taalibe mooy sóobu euh, tariqatul iraada te loolu itam mooy jaay njureel ga jënde ko ak taalibe loolu itam moo waraloon mboolem njabootu sëriñ Touba gi ñëpp itam jaay njureel gi nga xam ne am nañ ko Cheikhul Xadim jënde ko ak taalibe Cheikh Mamadou Lamine foofi la jaar te itam loolu moo ko leeral ci ay bindam wax ne aataytu kulli lil baaxi bila nafadin mustasliman lil qadimi muxbital xidam ku ne xam na ne Cheikh Mamadou Lamine jëmmam ak jëfam ak léppam da koo joxoon suñu borom subhanahu wa taala waaye ba mu defee loola itam teewut dafa jël euh, li nga xam ne mooy ak njuree la mu jaay ko jënde ko taalibe dem ci Cheikhul Khadim jëbbal ko boppam doon ak taalibe doon taalibe Serigne Touba te itam bir na ne mboolem li Cheikhul Khadim nekk ci kaw suuf Cheikh Mouhamadou Lamine mësta am dara yitte mësta am lenn lu muy soxla mboolem lu mu mas a liggéey mboolem lu mu mas a bay ñëw na jox ko Cheikhul Khadim defal ko ko addi te comme ni ko taalibe yi doon defe tey itam loolu mbooleem njabootuk Serigne Touba gi mën nañ ko ci seet man mën nañ ko ci nekk foofu nga jaar ak Serigne Touba kon Cheikh Mamadou Lamine foofu yi itam jaar na fi ak Cheikhul Khadim coow yi ñuy dégg ak jafe-jafe yi ñuy dégg loolu rek moo ko waral ndax damay faral di wax ni fi mu toll bu xoolee ñaar ñoo fi nekk wala ñett muy koo xam ne dan koo jàngal te yaruñu ko ak koo xam ne yaruñu ko jàngaluñ ko ñaar ñu ñëw fu ñu tasee dara dafa fa coow yi ngay dégg ak jafe-jafe yëpp loolu moo ko waral kon jamono boobu buñ fa tolloo indiwaat jëmm ju mel ne Cheikh Mouhamadul Amin ci nim daan yare kon dana jaadu dana yell kon baatub tarbiya ci lislaam mooy laabal mooy sellal mooy defar jikko loolu kon mooy yar ci lislaam léegi bu ñu xamee kan mooy yar muy Cheikh Mouhamadul Amin xam lan mooy yar bi yar léegi nag lan la yar muy kon nit nit dafa am lu ko composé nit dafa composé ay xaaj yu bëree bëri mën nañ koo tënk rek ci ñaari xaaj muy li ñuy tuddee ar ruux ak li ñuy tuddee ak jism yaram wi boo bëggee yar ñaar yooyu da koy matale dangay ngay defar jikko defar yaram waaye boo defaree yaram rek te defaroo jikko du baax boo defaree jikko rek defaroo yaram du baax dañuy ànd yar doog a mat kon kin war a yar mooy nit nit lan moo ko composé muy ar walla wal boo ko defee Cheikh Mouhamadul Amin bi mu ñëwee moom euh, ni nga xam ne ne daan yare mooy yoon wi xam ne Cheikh Amadou Bamba Xadimu Rasul ci la daan yare ndax euh, doomu aadama bi ginnaaw ñaar moo ko composé muy yaram ak roox dafay boole kon ñaar yëpp defal ñaar yëpp kon Cheikh Mouhamadou Lamine ab yaram foofu la ko jooyaloon foofu la ko jëme woon bu xool li Cheikh Cheikh Mouhamed Fadel wax ni ko wasifa daa il laa tuxsa wa asgaruha maa fiika min xusni axlaaqi wal xasabi la laay jaari fi lmadani min ahadin fi l ilmi wal xilmi aw fi l bir wal nasabi ba àgg si di ko wax naan ko inda baabikum tul fa bi xu dafa am man kaana daa raxibin minhum wa saa raxibi ni ko ma zilta tawlihimul ihsaan fi abadin la zilta lin naasi taqdi kullama arabi ni ko yow sa buntu kër nit ñi saa soo leen fay dajaloo fees fa del ñii am luñ bëgg ñii am luñ xemmam ñii di laqatu ñii di sàkku luñ yóbbu ñii di ñaan lu waaye du tas yaakaaru kenn yaakaaru kenn ñëpp kenn ku nekk la mu wut ci bu ñëwee ceew dina ko am. se se Cheikh Mawal moom moomu ña ñu ko paase ko foofu ñu ko yow àjjana nga yow suñu baar àjjana nga ñu ko xadd kaana jun murid wa junnatan anil marid wa kulli insanin tarid ani sawati axoom ni ko yow àjjana nga àjjana àjjana murid nga murid boo xam ne dafa jaar fu mu war a jaar yow Cheikh Mawal Lamine yaay foo ko boo xoolee mu ne ko wa junnatun anil marid na anil marid googu jublu sa défendre is yoonu murid la ak défendre Cheikh Ahmad Bamba kam ni Seydina Omar doon défendre islam ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye du woon ak tàngam wala comme ni ko nit ñi defee jël ko def ko gaynde gi fàdde wala malaaka muy raye melu woon noonu kon borom ndax boo xoolee ni mu wax ci mën a bunyaan ni rahmaan wa aati ummatil hadi amin wa hab lanaa maa na nga yërëm xeetu yoon alayhi salaatu salaam yëpp kon kooku kon borom yéemaan la Cheikh Amin ak ni mu meloon ak Serigne Touba mel ko ak Cheikh Moussa balaa wàcc na Jurbel Serigne Touba wax ni nan woo Mouhamadou Amin Mouhamadou Amin ñëw mu wax loo ko ni ko balaa bi jël ko fi sëñ Baara ci waaye xas yi gin naan yaa rabbana innal wala taddu raxoon ba suñu borom jël fa tawat jooju boo xoolee am na ku ñuy wax soxna Xari Ngom dem na dem na tindoo di ànd am ku mu àndal di seeti doomam ji wax ji ba mu demee bay jub dëkk ba jaan mat matt ki mu àndal ba mu àggee si dëkk ba fekk orso Cheikh Mouhamadou Lamine di départ fekk sëñ Baar laata muy muy dem daa batale ñu am na ko fi ñëw bu ñëwee dafa feebar bu ñëwee nañ ko jox saafara bi mu bi mu demee ba jub dëkk bi jaan matt ko mu dem ba bu bu duggee gis gis maanaam oto bi départ mu ne ma suñ baar mu ñaanal ci ñu ne ko lan la buñ ko jaan xamat ñu ne ko suñu baar de battali woon na fi ak ñaan ñi am na fi ñu war ko jël kon moom moom kon daa passé daa woon docteur danaa joxe saafara soo xam ne ku tawatugul danaa joxe saafara ba tëgg batale boo xoolee it ci nim liggéey ah, ah, ci ay góor yàlla li ko waykat bi wax rabba wa raqa kulla man laaza bihi zaka sama képp kum jamono teel nga nungul ko topp ci ginnaawam wala nga déggal ko yar na la ba nga paas yàqu mu yëgal suñu borom subhanahu wa taala defar ay kilifa yu bari ku mel sëñ ñaan Jóob mu jawwaalo ak ak suñu sëñ Mourou Amar ak sëñ Mourou Tall ak ñu bari ñoo xam ne laa taxaddu wala tox sax sëñ Baara nag yàlla dogal na it ba ñu jàngee ba jàng la ñuy jàng moom fukki atam ak juróom-yaar ci la noppi defatu dara 1909 nag bi sëñ Touba ñëwee Jolof la ko na mat Lamine am naa ci ndigal sama digal sama borom ndax xasaa yi mu daa def kat gu mas a def da koy woon sëñ Touba ne ko ah seetal ma rek ba xam nangu nañ ko rek te buñ ko nangoo yaay wax na nangu nañ ko sëñ bi bi ne ko borom dégg na la nga wax te def na la nga wax te lu ta a ñaan ñaan na ko it te lim woy ko lu sëñ Tuubaa woyoo yaa ngi dégg li mu wax da caa boole woon wilaaya ga lu mu rëy rëy ak taalibe ko safoon du solu dàll du sol mbaxale ci biir doomi sëñ Tuubaa yëpp lañ si jootal kenn dara te lu mu am jox ñëpp wexteen bii ñuy wex xaaju la wex am ndox rek la day def na ne ko dal ci kawam aw doj bu neen dal ci kawam del waa waay doj moom fa toog jóg déedéet monsieur Diop mbir lor kenn waaye ku ca loolu nag yaa lor sa bopp. Ah, moom lu koy indi Mbàkke Kajoor. waaw loolu aw laaj la. bii nga xamee ne soxna xëri gay dooñu sëñ Madou Gueye gi mooy sëñ Baara sëñ Touba da kon am naa ci yow ndigal yow kat yaay jëkk a ci Modou Moussa sa Lo Omar mi maanaam ah, si sa ndigal rek day mën na ko ah, ndigalal yàlla ñu jox ko soxna xëri gay sëñ Touba nag ba ko ko joxee ca Jolof la 1909 sëñ Baara jekk ba mu yàgg ci ah, si sëñ ba jekkoon a jaar gannaaw ba mu jógee ci géej gi dama fa bëgg a barkeelu ji ca kër Siré Lo dikk sanc fii ci kër Siré waaye taggoor sëñ Tuubaa ba mu fi nekkee nag yéex a xew na ay donga la yor sëñ Siré yori donga yi am na ci ay mbir mu yoo xam ne dañ koy bàyyi noonu léegi des na waaye sëñ Amar Fall mii fekk boobu mooy sëñ Mbàkke Kajoor ndax sëñ Mbàkke Kajoor faatu na am na fi ñaar fukki at ak ñeent moom Mbàkke Kajoor sëñ Amar ne fi sëñ Amar nag moo jóge fii dem ba gis loola wàññi ko dem jéem wax ko sëñ Tuubaa sëñ bi ne ko wool Mamadu Lamin mu ne ko mu ne ko foofee loo fay def foofa du bayu te loolu la ñu sant te si dee gërëm naa ko lool te nit ñi lu yàqu dañ ko fekkut dikkal dem Mbàkke Kajoor Basiiru mii di sa rakk sax am na fa mu góor ba kër yëngu damaa bëgg nga góor àll ma fekk la fa waaye kaay dem fa kër Amar Fall toog fa ab diir déglu ma keroog ba mu duggee ci kër gii nag bar moolu gëmee gëleem xëyul ci waañ am na fi juróom-yaari weer juróom-ñetti weer juróom-ñeenti weer nit ñi mandaxe rek waaye man xam naa la ma doon waaye foofu laa ci yem gannaaw ñuy wax te dégguñu fu loolu la ñu wax du ma wee di waxe kenn sëñ Amara xëy na ko ma di la min daal damaa bëggoon a waxtaan ak yow damaa bëggoon a génn kër gi ndax yow yaay sëñ Touba te seeti faneen fu ma ko defee itam du tee la ma sëñ Touba waxoon ci yow laay def yaay sunu kilifa noo bokk jenn lañ maa mag maa bokk ak sa baay baay waaye sa baay saaf sëriñ te ba woo ci sa baay dara ci ñi damoo di ko tiitaloo ci nga bokk waaye dama laa bëggoon a bàyyi nag ak njaboot ga te am na ko ah foo su foo foo sanc fa laay sanc di sëñ Bamba sëñ boole yow te yaa ko wax la tax mu boole no ko nag ah du ma kër di da koo nax ba sëñ Baara tukki ka loolu ñuy wax duñ ko wax ndax xamuñu ko sëñ Amar woote bañ dikk mën a réew ñëpp nañu daje. tool Mor Anta Sali bii mat na ñetti téeméeri mètre diggam ak dëkk bi te kenn dama koy dogle rek. damaa bëgg tool moor ant seli bi barke nga fi moom lañ ko daa bayal nañ fa sancal mër la mi woo adduna bépp ñu daje fi sancal ko fi nii yoo xam ne kenn kenn ba mu dikkee naa lii lu mu doon man ko sabaay ma ko sant ñee na nga toog fii mi ngi lay gorale baal liyee ko andi fii assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala mbokk jullit yi ngeen may ma ci turu son excellence le président de la république Macky Sall di doom di taalibe di wëllëre ci kër gi ngeen may ma ci turam ma nuyu sama papa suñu yaakaar ci Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasool danaa ci dellu si tuuti Serigne Touba c'est vrai dama représenté autorité suprême réew mi mais taalibe Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul danaa ci dellu si nuyu suñu wayjur suñu kilifa suñu yaakaar Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul njabootam Serigne Sidi Makhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te wér ah nuyu ko ci turu excellence le président de la république Macky Sall nuyu ko sargal ko ñaanal ko yàlla mu yàgg fi te wér parce que jàmmu Sénégal lay doon jàmmu diine islam lay doon na diine ilallah al islam islam boobu ah taxawaay jëm bu rafet lañu ko xamee ci senegaal rawatina ci Touba la ville sainte Serigne Moustapha ah ngi lay ziyaara di la feddili suñu cofeel wax naa la ko cofeelu xol laa am ci yow Serigne Cheikh Thioro ki yore liggéey bi nga teg ko ci loxoom ah moom sama xarit la wante yow sama soppe nga sëñ Moustapha di nuyu nag sama sëriñ yi fi nekk yépp njabootu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul kenn ku ma ci gis rek daf may wóor ne bëtu Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul ya may xool ca moom laay xool ci yow paaru Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diggante mbindeef fa la Serigne Touba nekk moo tax ah président de la république yenn wi diis na coow li bëri na wante moom gën naa am yaakaar ne incha allahu rabbi mille trois ba sëriñ Touba di jóge fii ñu di ko exilé ah boobu jàmbaar ku gëm yàlla doyloo ko. moo mënoon ñëw tànn fii toog fii di fi wut yàlla di fi xaar yàlla wante dem nañu tey ba làmp yi tàkk nañu yaakaar ji jebbi na ah Mbacké Kadior moo tax le président de la république son excellence Macky yaakaar googu mu am ci Touba nekk fi taalibe wante nekk liggéeykat gëm yàlla te doyloo ko ah yaakaar boobu tey mën nañu wax ne insha allahu rabbi Sénégal gii mu bëgg mu jóg taxaw ci dignité ci ngor ci liggéey ci nangoo sonn wante ci taxaw ci dëgg ak dë ak ak ak ak moytu tooñ moo tax loolu mu ngemboo boole ko gëm yàlla di taalibe Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul wóor na ko ne liggéey bi diis na metti na wante ku am ñaan amoo dara looy tiit président de la république Macky amul dara lu muy tiit ndax wóor na ko ne am na ñaan Serigne Touba Serigne Sidi Maxtaan Mbacké way juram sëriñam moo tax kenn ku nekk ci yéen njabootu Serigne Touba Khadim Rasoul président la république mu leen di tàllal loxo di tàllal loxo pour sàkku ci yéen ñaan pour Sénégal jëm kanam ila Touba tànneef boobu nga xam ne Touba c'est le centre de gravité du Sénégal wóor na ko ne liggéey bu mu somb pour Sénégal jëm kanam bokk na ci yoon yi nga xam ne koom-koom yi ak dox mbokk ak dox diine ak liggéey fi lay jaar mu ne ila Touba bu ma ko réaliser daanaka réaliser naa Sénégal yépp yemu fi mu ne nit doomu aadama dafa war a jub rawatina ci alal juñ la dénk pour nga liggéey askan wi ah gis naa fi suñu sœur ah madame Keita Sophie parce que Nafi Keita parce que jumtuwaay yooyu pour nit ñi am responsabilité monsieur le maire Ndiaye sama doom baay kenn ku ci ne nga am ndombo tànk war ngaa ku ne alal juñ la dénk du alal joo moomal sa bopp moo tax réew mi pour mu jub foog mu jaar ci yoon ñu respecter li nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk treize millions d'habitants cent dix mille presque emplois à commencer par le président la république ba ci suuf waay waay ñi des ci Sénégal lañu bokk moo tax kenn ku ne na nga ñaan Sénégal jàmm am fii nit ñi dalal seen xel te ki mën a dalal xel mooy Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul mooy njabootam yu tedd yi moo tax président la république ne ma boo demee sàkkul ma ñaam ci réew mi réew mi bu amee jàmm rek man dinaa mën a mattali sama liggéey ndax liggéey moom foo ci tollu rek jiitalal yàlla ak ngëm ak njub ak jubale ci loolu la nekk ji ci sàkku ñaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi sant gërëmati sama xarit ah sëñ Cheikh wax dëggu yàlla président nee gis na sa taxawaay rawatina ci màggal bi ne ma naa wax sëñ Moustapha ne ah, digganteem ak sëñ Cheikh Thioro diggante bu rafet la te li ko sëriñ bi di wax yëpp en tout cas dana ko ko yeggee moo tax. amul benn njuumte bu mu xam ne mën na am ci diggante bi moom daal taalibe la euh, doom la loolu moo am te muy sàkku yàlla rek suñu boroom mu may ko firndeel ko taalibe Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moom président Macky salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gërëm Cheikh Ahmadou Bamba di leen nuyu di leen siyaar ci turu sëriñ bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des mourides ñuy ñaan yàlla suñu borom guddal fanam te may ko ak wér ak ci turu mbooleem ay rakkam ak doom yi ak sët yi waaye ci teewaayu Cheikh Mouhamadou Moustapha bi nga xam ni mooy suñu mag tey taawu kër gi ca jiite liggéey bi kon ñu nuyu mbooleem kilifa yi diine yi fi teew yépp rawate nañu sëriñ bi bokkoon Cheikh Ahmadou Bamba waaye kilifa yi diine yi nga xam ne itam dañoo bokk sëriñ bi lislaam te am nag moom àndin wu rafet ñuy nuyu itam délégation officielle bi nga xam ni ñoo fi représenté le président Macky Sall dinaa ci dellusiwaat insha allah di leen nuyoo ci dëkk bii nga xam ni moo di Mbàkke Kajoor nga xam ni Mawar Anta Sali moo ko sanc doon fi jaamu suñu borom ba fii la wàcce liggéey cheikhul xadim yóbbu ko deqale Mbàkke Kajoor bi nga xam ni fii la sayyiduna muhammadin alayhi salaatu wa salaam jëkkër saafonte ak cheikh na cheikh ahmadou bamba Mbàkke bi nga xam ne fii la yoonu murit juddoo Mbàkke Kajoor bi nga xam ne cheikh la doon liggéeyal la ba wàcc fi ak liggéey ñu yóbbu ko Touba Mbacke yow nga xam ne taawu Cheikh Khadim da soxna Fat Dia fii la gënee àddina waaye Cheikh Sidi Makhtar nga xam ne mooy Serigne fii lay kon ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ci dëkk bu sell boobu la waaye di leen siyaar itam di leen ndokkeel ci biis bi nga xam ni moo di màggalu Mbacke kenn ku nekk xam ni mu tolloon Cheikh Ahmadou Bamba ci mbégte waaye nekk te itam ci taalibe yi ànd ak Serigne Touba ni ko Cheikh sëñ Cheikh Abdou Ahad léegi waxee moo tax as-saabiquuna al awwaluuna min al muridiina nga xam ne man maa leen tudde ahlul himma ñi jaayante woon ak Serigne Touba fii ci Mbacké Kajoor ànd ak moom diiru juróom-ñetti at keroog bi Cheikh Mouhamadul Amine feeña ci jamono ci leen Serigne Touba woo ñoom ñëpp li leen li ngeen ci seen borom gan gi ñëw andil na leen ko xewal googu ak ndimbal gi ak yërmaage nekk ci bis bi moo tax Cheikh Sidi Makhtar Mbacké woote ko ngir bëgg ñëpp jamono ci waaye alhamdulilahi rabil alamin Cheikh Sidi Makhtar woote na waaye Sénégal gépp wuy si nañ ko l'islam bépp wuy si nañ ko yoonu murid bépp wuy si nañ ko ñi nga xam ni seeni waajur doomi Serigne Touba yi ñooy seen xalifay doomi Serigne Touba yi ñoom ñëpp ñëw nañu kenn desul waaye ñi nga xam ni tam seeni waajur ak Cheikh Ahmadou Bamba ñoo bokk moom war a ànd sëriñ ñoom ñëw nañu kenn desu ñi nga xam ne dañoo jor sëriñ bi ca maam Balla ba ca maam Maaram ñëpp ñëw nañu kenn desu ci cheikh sëriñ Touba itam ñoom ñëpp a ñëw kenn desu ci cheikh Ahmad Tidiane Seck xalif ba ñëw na fi sëñ Maodo Cissé ñëw na fi ak njabootam gis ngeen sëñ Moustapha Cissé itam ñëw na fi moom ak njabootam sëriñ Abdou Sakho mi ngi fi waaye ñoom ñaar ñëpp seen waaju seen maam ya dañoo nekkoon fii ci Mbacke Kajoor doon ci sàkkoo xam-xam kon su ngeen fi ñëwee da ngeen fa am cër dañ leen a war a jox cër boobu sëriñ Omar Cissé moom itam ak sëriñ Ousmane Cissé ak sëriñ bay Cissé ak sëriñ Moustapha Ka ñoo bàyyi ko Touba jaamal ñëw fekk si bi ci màggal bi Thierno Alpha Ba Wouramadi moom it ñëw na fi Ahmed Ayane Thiam moom it ñëw na fi teewal euh, Thierno Madani Tall ñoom itam keroog àllarba la ñu woote ca jàkkay Cheikh Oumar ji nekk Ndakaaru ni képp koo xam ne da nga bokk ci waa kër Cheikh Oumar woo nañ la nga ñëw fi jàng alxuraan karim ànd ak Cheikh Sidi Mokhtar ci sant ki nga xam ne moo lay sant waajuram ba topp di ko ci ñaanal délégation Ngourane ñëw nañ fi waa Ahmadou Sow Diegane ñëw nañ fi délégation Abdoulaye Niass ñëw nañ fi kon loolu mooy lislaam bi nga xam ni ñoom ñëpp teew nañ fi li nga xam ne itam ay fédération daayira lañ di daanee Cheikhul ñoom ñëpp fi teew tàmbalee ko ñi nga xam ni ñooy waa kër gi muy cha fédération Sahadatul Abrar moo xam bi nekk Touba la sëriñ Abdou Aziz Lo jiite ko moo xam bi nekk Ndakaaru la sëriñ Alaaji Fall jiite ko moo xam bi nekk Louga la Alaaji Ma Jeey Fall jiite ko te sëriñ Daam Diop yor kàddu mbooleem koo xam ni taalibe yi kër sëñ Baara te wax fi wax yu rafet kon ñu ngi leen sant ñoom ñëpp gëm nañu gën gërëm nañu leen wax ci taxawaay bi di sant itam daayira Cheikh Khadim lu mel ni daayira fédération Cheikh Mouhamadou Moustapha ñaari kër benn kër la rawatina daayira wilaaya bi nga xam ni naka jekk ci jamono sëñ Mbàkke Soxna Lo ba léegi ñun ak ñoom ñooy ànd di taxawu màggal gi taxaw bu rafet ñi leen ci sant bu baax a baax di leen gërëm di sant daayira Hizbut Tarqiyyah maanaam monsieur le gouverneur amul benn yoon boo xam ne sëñ Mbaye Ndiaye ma la koy yóbbante ay ay ay yóbbante ci président Macky Sall mook préfet ak sous préfet bis bu nekk ñi ngi jokkoo ak man di laaj lan moo manqué ak fan la mbir mi toll kon fokk yow bi nga xam ni yaa fi teewal président Macky Sall ma jot la ngërëmi sëriñ yi ak cantam ci ñoom ñëpp ndax li ñu waroon def su diggante ak ñoom def nañ ko bi ñu bindee président Macky sàll lettre itam gis nañ ne jox na ndigal premier ministre premier ministre am jox na ndigal bépp ministre boo xam ni war nga sa yoon war a nekk ci màggal gi jot nga lettre bu bàyyi ko ci Mahammed Ibn Abdallah Dionne premier ministre ministre bu nekkee boo xam ne war nga cee dugal sa loxo fab nga say directeur généraux jox leen ay ndigal ñu wàcce ko ba ci chef de service départementaux yi ak lu ko yëpp bañ ànd def li nga xam ni màggal gi amee nañ ko ci anam yi nga xam ne bëgg woon nañ ko kon sëriñ bi di yóbbante ay cant ak i ngërëm ci président Macky Sall ndax ñun ñi nga xam ni taxawaayam ci Sénégal taxawaayam ci lislaam taxawaayam ci kër Cheikhul Khadim taxawaayam ci kër Cheikh Mouhamed Bara lépp loo xam ne soxla nañ su duggee noppam dana jox ay ni ñu ko bëggee defee na ko ni nga xam ne lañu bëggee kon sëriñ baa ngi sant di ko ñaanal wax moo daloon xelam bu baax a baax ndax ba mu ñëwee fekk fii Mbàkke Kajoor dem jotee réew mi la wax waxante woon ak sëriñ ba léegi ma nga ca loola kon sëriñ dina dalal xelam mi yi nga xam ne am na ko senegal ak projet yi suñu borom dimbali ko defal ko tawfeex ba projet yëpp ak ndax xam ni projet si àggee senegal dina bokk ci réew yi nga xam ni moo gën a développé ñi ngi sant itam premier ministre bi Mamadou Abdoulaye yónnee na fi sëriñ Abo Sall indi fi ay teranga joxe ndigal ci màggal yi ba léegi lépp loo xam ni war nañ koo taxawee ministre bu war a taxawee taxawee nga ko incha allah bu subaak jàmm kenn ku nekk li nga di def danañ ko jot li ni ñu ko daan jotalee waaye sant nañ premier ministre sant gouvernement bi yëpp jaar ministre de bi nga xam ni lépp lu jëm ci affaire culture moo ko yore ko ñëwee sant bu baax di leen gërëm di sant itam euh, waa assemblée nationale président Moustapha Moustapha Niass yónnee na fi ay délégation ak député yi nga xam ne yëpp ñëw nañu fi soxna Aminata Tall yónnee na fi sëñ Abou Mbacké mu sëñ Moustapha moom itam ñëw na fi sëñ Fall Assou Dieye yónnee na fi ay taraanga moom sant nañu ko baax a baax gërëm ko bu loolu lépp wéyee nag dama bëgg ñu dellu siwaat ci bis bi euh, bis bi sëriñ daf ko woote waaye teg ko ci ñetti anam bu njëkk bi mooy fàttali ñaareel bi moo di ñaan bu ñetteel bi moo di ak cant fàttaliku nag suñu borom subhaanahu wa taala moo ñu digal ci alquran ñuy fàttaliku yonent yi di fàttaliku awliyaahu yi ak nit yàlla yu sell yépp waaye li ñuy fàttaliku ci ñoom mooy seen gëm yàlla ak seen lislaam ak seen ngor ak seen diine ak seen makkaari bu axlaaq moo tax suñu borom di wax ci alquran wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduna suñu xoolee li jiitu ci ay yonent jëkk sayidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mu nekk 124000 ci ay yonent yu yàlla yónni waaye ñaar téeméer ak ñaar fukki yonent ak ñeent yooyu su borom yónni def caa tànnaat ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñetti téeméer ak fukk ak ñett yooyu mu tànnaat ci ñaar fukki yonent ak juróom yoo xam ne ñoom ñëpp seen i tur ñoo ngi ci alxuraanul karim yonent yooyu da ñaar fukk ak juróom yooyu kenn ku ci nekk am na lu la suñu borom taggee waaye suñu borom lam la taggee du juddu bu rëy du alal du ab taar waaye makkaaribul axlaaq rek la la su ma ci jëlee ñaar muy yonent yàlla Ismaayil dafa nekkoon nit ku dëgg ku fonkoon ay waxam fonkoon rendez nga xam ne bu la mosaa jox ba ne bis sàngam dana daje doon weer la dina fa toog dina nege nit bëgg a ñëw dëggu boobu nga xam ni moo nekkoon ci moom nag suñ borom xool ko ba tagg ko ci wasul fil kitaabi Ismaayil innahu kaana saadiqal wa'di wa kaana rasulan nabiya dëggu gi mu dëggu woon moo tax suñu borom tagg ko ca mënoon na koo tagg ci xalilullaahi mooy sa waajur ku ne xam ne seydina ibrahim mooy xarit suñu borom mënoon na ko ni abul anbiyaahi mooy sa waajur waaye tagg ko ma ngi ko tagg ci jikko bu rafet bi mu yor muy makkaari bu axlaa muy dëgg ak fonk kàddoom ak fonk rendez ma jël beneen yonent yi tam alayhim salaatu wasalaam mu yoon yàlla ayuba mu nekk nit koo xam ni dafa mënoon a muñ dëgg lool ci ak ngëmam di sant yàlla nga xam ni jamono lu mu tartar ci moom wala ñàkk wala balaa du ñàkk mukk du saalit ba suñ borom tagg ko ci loolu inna wajadnaahu saabiran ni'mal abdu innahu awaabun alayhi salaatu wasalaam bu ñu xoolee ki yàlla yónni woon muy ngeen ci sayyidina Muhammadin alayhi salaatu wa salaam moom bi mu ñëwee àdduna tudd woon Muhammadul Amin Muhammad rek la tuddoon ndax maamam it sell la Abdul Muttalib bi mu feeñee ci jamono moo ko taawoo ci ñaari loxoom di wër Kaaba la naan sammaytuhu Muhammadan li yakuna mahmuda tudde naa ko Muhammad ndax su màggee amal nit ñi njariñ bañ gërëm ko suñu borom gërëm waaye ju at yu néew. sallallahu alayhi wa sallam ñu gis mu wuuteeg ñëpp ci jikko ci doxalin ci sellin ci dëggu ba ñaari giir yi nga xam ni ñoo gënoon a màgg ci màgg gën faa rëy muy banu hashim ak xurayshim ñëpp di ko xëccoo kenn ku nekk bëgg liggéey ak moom ndax maanteem ak dëggoom akum njugam akum njugam ba ci biir loolu sayyidatuna Xadija ab commerçante bu mag la woon moo ko opté jël ko di liggéey ak moom waaye gis ci moom jikko joo xam ni gis ko ci kenn te booba sayyidatuna Xadija ma nga dem fukki at yu juróom waaye mu mujj fa boppam jox ko mu nekk soxnaam mu nekk borom këram ndax jikko ji rafet yooyu nga xam ni fépp foo xam ni ak ñàkk déggoo am na ci ci ñaari nit wala ci ak giir dañ naan nañu woy Muhammad ibnu Abdullah su ñëwee dina leen jubale ba jafe-jafe bi doon am ci diggante ñaari biir ñooñu mooy bi nga xamante ni defaraat nañ kaaba gi ba noppi war a jëlaat xajarul aswad dugalaat ko ci biir kaaba gi diir bu nekk ni maa ko ci dugal ba xeet na am seen diggante nañu woy Muhammad ibnu bi mu ñëwee ñu wax ko ca maandoom nga ak dëggu nga ak njub nga ak sell nga wax ko ni mu demee ni ko ñaari géej yi dañuy xëccoo kenn ku nekk ni maa war a dugal xajarul aswad ci biir kàmba gi sallallahu alayhi wa sallam daf jëli benn mbalaan bi ñëw teg ko foofu xajarul aswad ci loxo bi tedd ya teg ko ci biir mbalaan bi kaw mbalaan bi ni giir bu nekk nañ jàmm benn côté kenn ku nekk jàpp ci benn wàll ñu ànd dugg ci biir kàmba gi mu jëlaat ko tegaat ko ca pañ ba jàmm am seen diggante sallallahu alayhi wa sallam ñu mujj ko al aminu moo waral Mouhamadul Amin loolu kon jikko bu rafet boobu moo ko may boppam ba tudd ko ak Amin suñu borom itam yónni ko ci jinne ak nit yónni ko ci ñi mag ak ndaw ñi jigéen ñi ak góor ñi moo war a waxal ñëpp ba àggale yonent bu suñu borom yónni loolu fokk pour mu def ko ngir mu def ko fokk bu nekk ku nooy ak wet ku mën a muñ ku am makkaay bu axlaaq ku mën a maslaa ku wàcce boppam guddeeg bëccëg ñëpp di ko wër muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ñëpp di ko laaj seen lislaam mooy li ñu wër wër lépp léeg-léeg kenn jalgati ko ak dafa war a fa àgg waaye sallallahu alayhi wa sallam daf koy jéggale léeg-léeg kenn tooñ ci boromam waaye dafa jóg mukk day jéggalu yàlla suñu borom ba suñu borom jéggal la mu soog bàyyi ko ba noppi lépp lu muy def daf koy diisoo ak ñoom suñ borom tag ko ci loolu fa bi ma rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fatan xalilal qalbi lan faddu min awlika faafu anhu wastaqi lahum wa shawirhum fil amri wa izaa azamta fatawakkal ala allahi sallallahu taala alayhi wa sallam jikko jooju la sayyidina Muhammad ali sallallahu alayhi wa sallam làmboo woon te mooy makaarul axlaaq ji nga xam ne moom la ñu war a fàttaliku ci bopp góor yàlla ku tedd gi Cheikhul Xadim wax ni boo bëggee xam sayiduna muhammad jikkoom ju rafet maqaamaam fal taxaraan su doon nag furutal nañ ni maqaamaatu xayril xalqi ya an xayri rabbihi mu xayyee batun fal taxaraan surata nañ mi suratu nañ lan moo nekk bismillahi rahmaani wa nañ mi isa hawa ma dalla saahibuhu wa ma hawa wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa benn aay rek doy na ci wa ma yantiqu an il hawa sayyiduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam mus sa wax mukk lu safaanoog dëgg kon loolu mooy makaarimul axlaaq di nga xam ni moom la ñu war a royee sayyiduna Muhammad alayhi salaam te laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun hasanah yonent yooyu ma tudd muy téeméeri yonent téeméeri junni ak ñaar fukk ak yoon ak ñeent am ñetti téeméer ak fukk ak ñett am ci juróom yoo xam ne ulul azm ñoom ñëpp jikko ju rafet di ñu amoon ba suñ borom tàggal leen ko sayyidina Muhammad dafa làmboo jikko yooyu yëpp ba suñu borom nag ni ko nag ndañ dëpp gaa ngi nii wa innaka la ala xuluqin azim sallallahu alayhi wa sallam jikko yooyu la jikko suñu borom jikkooy makaarimul axlaaq ci la am soxla dafa ñaan suñu borom jikko jooju doon ne ko maa taxaabu bi bila shifaa yi ay noonam ñëw fekk bërëb ci biiru njabootam jël ko seet ko ci njabootam tàggale ki doomam tàggale ku waa këram génn ko réew mi mu dëkk di ko sonal bu nekk bëccëg tàmbalee ko Dakar ba muy wax naan su ma fàtte ko taal jixaar rek la sama xam ne nekk ak tubaab am juróom-ñetti at ci réew mi li mu ñu seetlu wax yaa fawu yaa ne abaay tural li wàcc man nafaaxu ne xëy na sarma dëgg la la yàlla waxoon yonent bi la fa bi ma rahmatin min allaahi linta lahum walaw kunta fartan xaliisal qalbi min faddu bi na afaw kon doon na jikko yi nga xam ni mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam kii ñuy fàttaliwu itam muy rek la la waxoon ba ku ko xam fu mu a toog ay xaleen ko wër ay taalibeen ko wër ay soxnaan ko ay moyens ko wër ay ndaw yu mu leen di jàngal seen lislaam di leen tarbiye Cheikh Sidi Makhtar nee na Cheikh Mouhamadou ci ak lewetam ak jikko ju rafet suñ masaa séddale eh, reer ba noppi bala ko séddale day tibbal ndaw yi li mooy dégg soo ko séddale reer kon kooku nit ku la woon li ko Cheikh Mouhamadou Fadil eh, seeral xat fokk sal xal min admi wa min alami yaa man xalaa ihu axlaa min a Cheikh Amadou Fall moo wax Cheikh Malick Bara ne ko jikko ji nga yor nit ku weex ak nit ku ñuul kenn amu ko kon jikko yu sell yooyu la Cheikh la la yu jaariga fil maydaan min ahadin fil ilmi wal hilmi aw fil dini wal nasabi loolu lépp Cheikh Amadou Fall moo ko Cheikh Malick Bara ci ay jikkoom ay makaarimul axlaaq moo tax sëriñ bi bëgg fàttaliku gi mooy ñu fàttaliku makaarimul axlaaq yi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara fàttaliku makaarimul axlaaq yi Cheikhul Xadim fat fat fàttaliku makaarim axlaaq sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy sayyidatuna nga xam ne moo nekkoon soxna sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko laajee ni ko yonante bi lan mooy jikkoom dañu kaana xuluqul quraan alquran moo nekkoon jikkoom alquran nag lenn nekkul ci ñun am nit ndax suñu borom mi ñu wax ci njëriñu sar suratul baqara alif lam mim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin suñ nee alkitaabu suñ bas dafa alkitaabu day mel ni téere boo xam ne fi nga nekk waaye alif bi laam bi du al du laam buy soreel laam buy màggal du laamul boxon yi waaye laamul taqsim moo waral mu ni za alkitaabu bi la dee laa rayba amul sikk sàkka ni fii def ne hudan am yu lil muttaqiin kon alquran am njub la biñ laajee Sayyidina Aïcha daf ne Sayyidina Muhammad jikkoom mooy alquran kon Cheikhul Khadim jikkoom mooy jikkoom mooy alquran kon nag ñun ñëpp li ñu war a jikkoo mooy alquran la waxee mooy suñu jikkoo mooy waral fàttaliku bi amal ñu njariñ loolu mooy fàttaliku ñaan gi ko ñaane mooy ñaan gi suñu borom moo ñu digal ne adduuni astajibu lakum fa inni xaribun ujibu daawata daayu daawata daayu isa daaw suñu borom moo ne ñaan leen ma ma may leen képp ku ma ñaan dinaa la may kon ci la ñuy déggee ne jullit lu mu ñàkk moo ko xaj boppam du ko ñaan suñu borom waaye su ko ñaan suñu borom suñu borom dina ko may moo tax Cheikh Sidi Maxtaar woote mboolem jullit yëpp ak taalibe yi rawatina njabootu Sëriñ Tuubaa gi woote ak ñaan di ñaanal waa waajuram ci bis bu bii nga xam ni mooy màggalu Mbàkke Kajoor waaye alhamdulilahi rabbil alamin kër sëriñ Tuubaa yëpp fépp fu daal di sëriñ Tuubaa nekk wala daaray kaamil wala pays l'islam yi wala daal képp koo xam ne ay daayira la fu waay toll jàng nga alxuraan kari yéene yoon bi Cheikh Mouhamadou Bara rawatina keroog bi ñu demee ci waawoon sëñ Abdou Aziz Al Amin dafa wax ne bisu tey bi ci àjjuma fépp fu saa yi maam Alaaji Maalik nekk dañ fas yéene yéen doo jàng alxuraan ginnaaw julli àjjuma bi ba ngoon ngeen jàppale sëriñ fi waa nga Cheikh Omar Foutiyou Tall itam muy ma sëriñ Madani Tall moom itam keroog àllarba woo na képp koo xam ne da bokk ci kër cheikh bi moom itam ñu jàng alquran ngir jàpp dako sëriñ ci loolu kon suñu bu baax di ñaan suñu borom nangu ñaan yooyu te dot Sénégal def Sénégal doon ñu jàmm ci biir Sénégal cheikh moom itam fa mu nekk suñ borom yokk yërmande ak leer te Sénégal suñu borom defal ñu ci jàmm ak tawféex loolu mooy ñaan cant gi itam moom moo ni dafa woote bis boo xam ni bisu ko la bisub ñaan na bisub cant la ndax dana eh, cant gi Cheikh Mouhamadou Bara mi waajur daf ko defal loo xam ni defalu ko kenn ci ak njabootam defalu ko kenn ci ay doomam mu bëgg koo sant nag war koo sant te sant gi mu xeet ci boppam moo waraloon mu woo àddina bi yépp leen ñëw leen ngeen sant le ma Cheikh Mouhamadou leen Bara waaye alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp ñëw leen sant ko kon maa ngi sàkk fu waay nekk nga di Cheikh Mouhamadou Bara jërëjëf Cheikh Mouhamadou Bara jërëjëf Cheikh Mouhamadou Bara jërëjëf kon nag Cheikh Sidi Matar Sénégal gépp islam bépp ànd nañoo moom sant le ko Cheikh Mouhamadou Bara waaye moom nag Cheikh Sidi Matar Sénégal gépp koy sant l'islam gépp a koy sant yoonu murid wépp a koy sant ndax doxinam ndax melokaanam ndax kiiraayam ndax fi mu féete ndax ngir na ñëpp nekk na géttu Sénégal ci lislaam nekk na géttu Sénégal ci ak njaboot ba tey li nga xam ne man ñëpp li ñu bëggoon mooy Sénégal gépp lislaam bi nekk benn suñu borom defal na ko te ginnaaw ñëpp ko sant nag waaye rawatina ñu am Cheikh ndax Serigne Bara dafay teel a jóge lool ci at yu néew bàyyi fi ay tànk lool waaye lu ci mën di am tey Cheikh Sidi Makhtar ku bokk ci kër gi tey kër Cheikh Mouhamadou Bara mbedd mu la neex jaar ak bopp ba yëkkati kon lépp moom la kon ñu koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaan di ñaan suñu borom yàggal ko fi te may ko ak wér li may tëjee nag waxtaan wi mooy ndénkaan yi nga xam ni wax nañu ni nañ ko jot li mboole bi ak Serigne Moustapha loolu mooy ginnaaw buñ gëmee yàlla suñu borom war koo jaamu te bañ koo bokkaale ak dara suñu lislaam ñu fonk bu baax sellal ko dëppale ko ak sunna sayidna muhammadin alayhi salaatu ndax ku baax ki de fii la waxoon ni lil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatawul xaraa wa inni ahmadu mu bëgg ñu ñëpp ñu fonk suñu islam rawatina waxtu julli ñu fonk ko bu baax a baax te suñu diggante suñu biir suñu mbokkoo suñu dëkkandoo ñu rafetal ko ñu rafetal bu baax a baax dëkkandoo bi te ñu jublu nag ci liggéey nee na waxtu liggéey jot na ruuj jot na nawet mi ngi jublu si muy sàkku ci ñëpp képp koo xam ni yaa ngi nekkoon ci bay nga gën koo fonk gën koo yaatal Serigne Touba li daan tuddee liggéey bu yaatu du caabi lu nga jël gerte rek bay lu mat 1000 hectares wala nga jël dugub bay lu mat 2000 hectares waaye Serigne Touba daan wax ni yaatal liggéey mooy lépp lu ñuy bay lu ne nga laajte su nawet bu baaxee di nga am lépp. moo tax Cheikh Sidi Mahane sax ñëpp ñu delluwaat ci tool yi dem liggéey bu ci nekkoon nga gën kaw fonk ñi nga xam ne dañoo gàddaayoo tuxu bàyyi seen i dëkk bàyyi seen i cosaan sëriñ baa ngi sàkkuwaat ci ñoom ñu delluwaat ci tool yi dundali ko ndax mbay yàggul te xam ne am réew liggéey moo ko mën a jëme kanam moo koy defar wax du ko defar rawatina ci jamono ji ñu toll wax yi bari na te ñaaw na te dara rafetu ci sëñ bi sàkku ci ñépp ñuy wax lu rafet te bàyyi xasante bi ci suñu diggante rawatina ci wàllu politique bi ndax suñu borom bëggul kuy wax lu ñaaw kuy wax lu ñaaw suñu borom daf lay jéppi malaaka yërmaane dañ lay jéppi nit ñu baax ñépp dañ lay jéppi yàlla moo wax ci alquran laa yuhibbu llaahu bi suu'i minal xawli kuy wax da wax lu rafet wa quulu linnaasi xusnaa moo ko waxaat man kaana yuminu billaahi wal yawmil aaxir fal yaqul xayran aw li yasmut nit ku mënta wax lu rafet na nga noppi wax ju ñaaw baaxul waaye ñi ngi ñu sëriñ baa ngi jéggalu yàlla képp ku mas a wax baax bu ñaaw ñi la ko jéggalul di ko jéggalu ki nga xam ni ñoo ko ñoo di ko jéggalu ñi nga xam ni wax ju ñaaw ci ñoom la dëkk ci ñoom la jëm ñi ngi jégalul yàlla képp koo xam ni wax nga wax bu ñaaw mu jëm ci keneen te sëñ bi sàkku ci ñëpp ñu gas lépp suul ko fàtte ko boole suñu bopp boole suñu yéene boole suñuy bëgg-bëgg te xam ni Sénégal képp ñun ñëpp ñoo ko bokk te kenn mënu koo jël bàyyi sa morom te mënee su ko séddoo kon fokk ñu boole suñu xol boole suñu yéene ba man koo jariñoo mën a jariñ Sénégal kon ndigal yooyu la sëñ bi wax ni nañu ko jottali bu baax a baax rawatina nag di sant di gërëm ñi mu bokkal Cheikhul Khadim ñi mu bokkal Cheikhul Khadim nga xam ni ay xalifay doomi Serigne Touba ak ñi nga xam ne dañoo dajeeg moom Mamour Anta Sali ndax bari waa na ñoo xam ne dañu ñëw fii ci moom suñu ñëwee dañ ko naan ñun day jàppewuñ la mag waaye bët bañ daan xos suñu waajur bët boobu rek lañ lay xool te sikkiwul ni ñoom bu Serigne Touba ñëwoon duñ soppiwaat mukk aw doxin duñ soppi aw dox aw toogin ndax ni sëriñ bi gërëm ak ni mu bëgg ña nga ca ànd ak moom ci liggéey bi di ko ci jàppale kon mi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di wax ñi nga xam ne nag dañ leen di tudd di tudd sëriñ bi te ñu ay ndaw sëriñ tubaa day dafa amoon lu nekkal alalam amoon lu nekkal ngàññaram amoon nekkal am mbellam du woon ay sàq du woon ay gëléem du woon ay koppar du woon or <coughs> waaye li mu defoon mooy téere alxuraanu karim te mooy jàngale mooy jàngale mooy tool ya mooy jàkka ja mooy tarbiya kansil kitaabu wal xadiisu wal adabu laa jamoo fidatin wala jamoo sahabi moo tax sëriñ bi sàkk wàcc ñun ñëpp sama ñu mel sama maas gi kenn ku nekk sa waajur am na fu la dëkkaloon ba am na foo dëkkoon muy sàkku ci ñëpp kenn ku nekk ñu dem dekkalewaat dëkk ya dekkalewaat daara ya jàngale ndax ku nekk xam na ni am na ñuy tuddoo lislaam di dugg Afrique rawatina Afrique sowu jant di dévier xale yi di indi yoo xam ni dañuy weddi ñàggale mag ñi di toj bàmmeeli kilifa yi ku gis Mali gis niseria gis iraak gis Syrie gis la fa xew waruñoo bàyyi xel lu bari jël ay responsabilité te loolu lépp mu ngi ci loxoy waajur yi ak loxoy sëriñ si kon sëñ bi sàkku ci ñépp ñu jàpp tànk dekkalaat daara yi jàngal xale yi yar leen tarbiye leen ndax ku tedd ki daf daan wax naan nang ma ko yaral jàngalal ma ko bam mu ni ar yaral ma ko bam ni nër ma ko ba mu ni nit koo def noonu kenn du ko mën a dëwee ku xool la xew Tuubaa fan yi lu ñu weesu xool la xew terminal yu kenn mësu sa gëm lu mel dina am Touba kon loolu war naa tax ñëpp jël seen responsabilité ci njàngaleem sëriñ bi aar ko ministre d'état Mbaye Ndiaye yéen ngeen jël seen responsabilité xool xale yi génn Sénégal di jàng ñuy xam fan lañ jëm ak ci lan lañ leen di forme xëy na sax loolu moo tax aar njàngale mag ñi moo tax ngeen bëgg a seen loxo dugal ko ci njàngale mi bu dee loolu la moom aar njàngale mag ñi ak xeex ñooñu alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp lañ ci war a jàll jàppale waaye daal li war mooy ñëpp war nañu jël seen responsabilité ci loolu rawatina ñi nga xam ne dañu leen di tudd di tudd sëriñ bi te di ay ndaw ña nga xam ni moom wax naa ci ñoom la ma wax ni bu sëriñ Tuubaa jël si woon jamono duñ soppiwu doxin duñ soppiwu toggin ñooñee kenn waxu leen waaye sama maas gi nga xam ni dañoo topp àddina bi topp taax yi bàyyi daara yi bàyyi jumaa yi bàyyi tool yi la ñuy wuti dañ ko bàyyi ginnaaw sëriñ Tuubaa bañ koo woccee àddina la mu waxoon xaaloo li tahus jawaïsa tuxni kulla ma xiini fa qultu hasbiya rabbi waktafaytu bihi walastu radiya xayral ilmi wa diini walastu arjuhu wala axsa siwa maliki li annahu jalla yuxnini wa yunjini anna ufawilu ahwali liman ajasu an ali hanfusihim ajsal masakini in kuntu sa hasanin aw kuntu sa watanin daawatu sal ayni xabla ra'i wa chini foofu la sëriñ moo tax sëriñ bi sant ñun ñëpp ñu nekkaat foofu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina kilifa yi nga xam ni dañoo bokk moom sëriñ bi tam ni ñu ko waxee léegi ci njaal mbir mi njabootu Cheikh Moustapha fii sëñ Abdourahmane a ngi nii sëriñ Cheikh sëñ Bassirou sëñ Moustapha Bassirou mi ngi fi sëñ Cheikh Anta ngi fi sëñ Abdoulaye Diagne suñu jaam nga xam mooy Cheikh Dibass mi ngi fi sëñ Cheikh Abdou ak ñi nga xam ñëpp ñu bi sëñ Cheikh Aliou moom mi ngi fi ñi ngi sant ñëpp di gërëm di sant itam ñi nga xam ni dëkk bi ni ko sëriñ la leen waxe sàng dëkku sëriñ Touba la dëkku sëriñ Touba la boo xam ni ay kilifa yu bari dañ fi dëkk sëriñ bi woote màggal gi ku mel ni sëriñ Abdou Khoudous mi nga xam ne mooy sëriñ Mbacke Kajoor ànd ak njabootu sëriñ Mbacke Kajoor di màggal màggal gi ni ko sëriñ bi màggale alaji maam Thierno nga xam ne moom moom maam si xaw Balla ku ne xam ne ni màggal gi ñoom ñoo ko moom ñoom itam ñi ngi fi sëriñ Cheikh Jëm mi nga xam ni maamam ji sell da maam Cheikh Ibrahima Fall fii la gisewoon ak sëriñ bi ñoom itam seen jox leen digal ñoom ñëpp ñi ngi fi di màggal màggal gi sëñ moo duggee mi nga xam ni moom waajuram moo jëkk jébul sëriñ bi itam ñoom ñëpp ñu ngi fi kon ñu ne sant sant waa Mbàkke Kajoor di sant waa Daaru Manaan di sant daayira yi di sant njaboot gi di sant état bi di sant mboolem fédération yi di sant la presse di leen sant bu baax a baax yéen waa presse bi muy télévision yi muy rajo yi muy site internet yi muy ñiy bind seen taxawaay rafet na di sant yi nga xam ne ay rajo privé lañu lépp lu ñu def sax ñun ci bés bi ñoom privé ñoom ñoo wax dëgg yàlla dañ ci taxaw bu baax génn ko ñi ngi sant ñëpp di gërëm di wax ne wa axir da'waana ay alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant di ñaan ñëpp delluwaat ci jàmm salaam ci barke Seydina Muhammad alayhi wa salaam kon sëñ Moustapha xam naa bu fekkee ni fàtt naa dara nga mate wala nga jàpp